buy ambiance nag tegal ci loxo Assane àdduna mbokk SBT maa nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu monde entier di nuyu waa benn barak ñu ma dëkk di nuyu ñu ma toogal ah ñu la ñoom Marley booy jaxaaw buuba gars yëpp ah maa ngi Omar. Omar bu Nouré nii maa ngi nuyu ñëpp nuyu Diorine Mor waa benn baraag yëpp sama papa Père Faye waaye kii baraag mbooloo yëpp maa leen nuyu. nga ñëpp nuyu gi préparé bi préparation bi bi ak diiraan combat bi lan man moom du ma du ma du may waaj komba quoi. man yaakaar naa saison laay waaj mais du ma waaj combat saa yi saison bi tëjee dañ ciy nag di préparer saison bi ñu combat da dabee ci diggante mi nag ñu mottali rek dem bëri ji man noonu la ñuy mais nekkul ne dañuy jël combat di ko waaj saison la ñuy waaj. kon su ma déggee sax combat bi nii nga doon waaj saison combat bi def la nga demee saison lañ doon waaj xam nga ñun ay mbër lañ te mbër moom mënoo ne da ngay bàyyi ba am combat soo ko entraîné kon da ngay waaj saison bi rek. boo amee komba dem bëre boo amul komba jël sa licence dem bëre ji simple noonu la ñuy waajee. guy jël Karbala wala Karbala fu mu toog na jox làmb boole leen yéen la jaar wala lan la. Karbala non rek daa bokkoon si ñu ma waroon a bëre rek yaakaar naa loolu la quoi ñu bëre yàlla may ko ndam ci sama kaw waaw ma koy félicité. di ko ñaanal ndam li jikko di encouragé sama bopp tamit. Karmala ngeen bëri yéen ñaar ngeen bëri spécial dinañu wax drapeau la wala ñu ne grand combat la ndax mbër mu ndaw moo gis premier combat bi mooy grand combat combat bu mu mënti bëri mooy grand combat fi moom ngeen bëri yéen ñaar arbitre sifflé yéen ñaar. waaw bëre bi ñun ñaar dañoo waaj comme ni ñu war a waajee rek ñëw ci làmb ji bëre combat moom grand combat. combat préliminaire ñoo yem rek parce que yaakaar naa ne mbër yu ndaw yi li ñuy daj sax boo xoolee grand combat yi dajuñu ko ku ci nekk da ngay sax ne sa grand combat ngay bëre si rek drapeau moom drapeau la yàgg nañ bëre drapeau xëy na dra bëree guñ drapeau ñu ngi doon doog a bëre drapeau aran mais yàgg nañ bëre drapeau loolu la daal. ngeen jàppante yéen ñaar ngeen waaw bëre la rek xam nga bëre moom tant que action amul jël du am tey ki toog si seetaan deful benn action kenn du ko daan wala du daan kenn bëre nag da ngay bëgg a def lii sa morom di bëgg a def lii li ngay def bu jàppee suñu borom ànd ci nga am ndam bu antiwul tamit da ngay am defar rek parce que li ma doon def keroog ba daanu ci def naa def naa ko daan ci ay nit yu bari waaw làmb nag moo demee noonu làmb làmb la nit dina def li ko war lépp ñëw yàlla àndul moom mu daanu. yaakaar naa noonu la demee daal mais du leneen. xam guy yoo xam ne day su ñuy amee combat ñëw stade car macha allah bu sumee ko duñu duñu entraîné wul bu sumee ko indi antoog ay mbokkam indiwul musique bu indiwul mbooloo guy gi est ce mi ngi am combat ay mbokkam 100 pour cent guy gi bu amee dina dem si ñoom di waxtaan ak ñoom ne ah, jël naa avance ak yooyu ku si mel ni ñi nga di nga bokkal famille par rapport ak ñi ngay ànd ñi nga xam sa waaw sama famille yaakaar naa bu ñu bëggoon bëre moom duma ci nekk quoi parce que man du ma nekk ci loo xam ne nekkul samay parents waaw làmb làmbu la xam nga làmb bu ñu la waxee làmb la rek làmb la li nga war a def lépp da koy def ñëw daanu boo waree daanu an naag samay mbokk ndax du may tàqalikoo ak ñoom chaque jour fu ma nekk maag samay mbokk ñooy nekk combat bu ma bëgg a jël balaa ma koy jël damay waxtaan ak samay mbokk ba ñu baay ma ma waxtaan ak ñi may àndal ba ñu bàyyi ma ma soog koo jël làmb nag làmb la daal comme li ma la wax rek làmb la. làmb la làmb la làmb la d'accord fi mu toll nii nag sa diggante Karbala jeex na coono bari ñu ne bu si galaaj jàpp si galaaj lan nga wax ñooñu amateur yi. non amateur yi moom ak supporter yi ñoo yem rek parce que ku nekk li nga gis si làmb ngay wax rek mais mbër moom mi sumeeku ci géew bi mooy yëg mooy xam li muy li muy li muy li muy yëg kenn jàpp ma si gàllaaj te kenn ëpp ma doole tamit ci làmb ji ki ma doon bëreel ëpp ma doole ci làmb ji jàpp ma gàllaaj daanu moo ñëw ma daanu daanu bu ñëwee noo mën a mel ci àdduna da ngay daanu waaw kenn mënu si dara ah. toll nii bi la jëm ak lan moo nekk moom duma ma si jóg maa ngi ci chaque jour ba ma daanoo laa xëy dem jërëjëwaat sama licence waaw du si jóg maa ngi ci chaque jour bu ma demoon bay fayu ko li ma war a fayu ko ci làmb tamit di tey sama sama staff bu ñu ko bëggee dama koy def. su ma jëm mooy toog déglu samay supporter samay supporter sama encadrement luñ ma digal ma def ko luñ ma tere tamit ma bàyyi ko déglu sama manager Matar Ndiaye sama grand Abdoulaye Ndiaye maa leen déglu saa suñ ma woowee ne ma pare nañ pour tëgal la samay supporter suñu paree pour dem ma jël combat waaw. waaw dafa am combat bu ñu waajal quoi suñu benn raq cargo lekk avance war a bëre samedi di woowaa benn baraag yëpp ñu génn jàppale ko suñu rax la suñu lépp la di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam mu nekk li si moom loolu moom ma teree wàcc mu ñu am ci ay affaire yu ñu nekk daal li lijjanti xam naa bu combat boo passé incha allah gars ñu dinañ la gisaat. mbër mu ndaw jàppale mbër mu ndaw na autorité est-ce nekk nii. autorités yi waaw am na ñoo xam ne bu ñu demee seeti leen dinañ am lu ñu teg suñu loxo am na ñoo xam ne tamit dinañ am yéene defal la am ñoo xam ne pour nga gis leen sax problème la mais lépp sant yàlla man damay sant yàlla bu baax parce que ñi ma yàlla booleel bariwuñu quoi mais ay jàmbaar lañ saa su ma lekkee avance dama dara du manqué lépp ñoom ñoo koy lijjanti damay ñëw rek ñu ne ma am defal defal lii defal lii defal lii kon du ma jooy du ma jooy côté boobu quoi. jëfandikoo jiw côté boobu. kon daal su ma déggee sax autorité ñenn ñi ñoo ñëw waaye ñenn ñi ñëwuñu. waaw ñoo ñoo ñëw parce que ñenn ñi da nga leen di seete sax pour nga gis seen problème la. mais yenn gars yi ma yàlla booleel ñoom ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ saa su ma lekk avance jàmbur danañ ci teg seen bakkan seen xar seen tànku tubéy ba sama dara du manqué wax dëgg yàlla ñoom nañ ma war a taxawoo ñu ma koy taxawoo di leen nuyu bu baax dofu Bambey xaw ma seen fay di nuyu waa bundu bi dugg fàllu waa café VIP mbifañi mbaafoñi waa tali bi xonk ñu nuyu tamit suñu jëwrin jëwrin mor du nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax ñu nuyu ñëpp parce que su ma amee combat ñëpp a siy jàpp barki seen Tuuba su ma amee combat nii man damay mujjee yéemu sax gars yi fu nekk la ñuy dem di jaayante xéwal di ma ko jox pour lan bëre bëgg ma bëre daan quoi mais ñoom yàlla dimbali na ma xam nañ ne bëre daan ak daanu ñoo ànd quoi defet nag boo ko amee des mu metti ñu àndal parce que gars yi dagg seen liggéey dagg seeni nelaw nekk ci yow sonn jaarante bu am xéwal jox la ko ngir lan nga am bëre daan boo daanoo day metti si ñoom quoi kon du ma def lu sant leen bu baax ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn su ma limee rek dinaa jum loolu nag seen tuuba ci làmb ñeen ci ndaw départ déparé trop trop saa bu jugee supporters yi gën a yokk gën ko jàppale lan la sa diggante wax noonu man la gën a yëm sax barki alxuraanu karim gars yi xaw ma lu leen defal barki alxuraan bu dee bëri am na ñu ma dàq bëri ñu fi nekk am na ñoo xam ne gars li ñu mën amaana sax mënu ma ko mais wallaahi saa su ma daanoo su ma xëyee amaat combat ñu may tëgal làmb wala sama ménagère xam na loolu ci man mbooloo mu ma indi woon su ma amaatee combat damay indi lu ko ëpp kon man rayante di daan rek moo ma war quoi mais ndam nag moo ko yor ñoom xam nañ ne ndam yàlla moo ko yor moo tax lu mu leen métti métti dañ may encouragé. guy gi fi ñu toll nii nag fan la jëm. waaw guy gi fi mu jëm mooy ci li mu rek nekkaat samay entraînement rek di xaar suñu combat le huit bi passé yàlla may ñu ci ndam ma jëlaat sama sama saag rek defaat ko na ma ko na ma ko daan defee buñ ma waatee komba bu ko gars yi bëggee ñu jël ko loolu la rek. te fi ñu nga jugee si combat. ñàkk waaye fi ñu toll say naataangoo ñu ngi si lamb ñoo xam ne war ngaa mën a laaleeg ñoom lamb dara war a booleeg ñoom. du ma tur turu kenn man si dafa laa nekk yaa may ma war mooy jël sama saak dem bëre ji bu ma buñ ma woowee proposé ma làmb kuñ ma booleel bu ko samay samay supporter bëggee sama staff nangu ko mu bëre. kon pourquoi nga ne si defar nga am nga droit laaj du loolu sax du loolu la du caagi na li ma daanu moo tax ma xoolal loolu man aw ma habitude du toog di tudd turu benn mbër man mbër laa mbër yaa ngi fi ku bëgg a bëre ak man bu gars yi pare pour ñu bëre dinañ bëre mais dama laa bëgg a xamal ne nekkuma fi naan naa bëre ak ma sàmba wala na ma dem na ñu bëre bëre wu ma ak nekkuma fi di tëkku kenn sama saag laa yor dem compétir yi saa suñ ma woowee ma sax combat ak diw lañ bëgg ñu may àndal suñu paree pour ma jël ko ma jël ko foofu laay waxee ak yow. kon daal su ma sax guy gi combat mi ngi dépendre si ñi muy àndal ak si am. waaw nu mu la demee nag. noonu la si àll bi wala day damay damay boot sama saak làmb du ndakaaru kese àll bi am na làmb dakaar am na làmb naay am paas bi rek man ba fudul Sénégal bu mu amee paasam may dem bëre waaw parce que man maa bëgg bëre quoi kon li bëre laaj dama koy def mooy compétir ji bañ a xaar combat foo xamante ne am na làmb ma am paase dem fa mën faa dem ma fay dem. foo dégg làmb fa da nga fay dem kon c'est-à-dire ñu lay xaar ne fépp foo xam ne simple day am rek xaar nañ fa làmb simple am rek maam maam maam paasam dama fay dem déggoo li ma la xanaa. fu làmb simple am ma am paas war faa dem dama fay dem man. lan moo waral booy Djilor. waaw booy Djilor xam nga leer la moo indi tur àll bi. booy Djilor sama benn gaan moo doon bëre quoi ñoo bokkoon écrit maa ngi koy nuyu bu baax léegi baax na bëre jiloor lañ koy wax damaa demoon si benn làmb quoi benn dëk comme li ma la waxoon rek yaakaar naa mosoon naa la fekk wax benn làmb bu moo ñëwoon di bindu gars yi ne ma ne ma doo bindu quoi ci tur boobu xaw ma nu mu demee noonu daal après ci la ci laa ci laa jox beneen gaan bu ma àndaloon xaalis ak licence bi ne ko boo demee nga binduma ma quoi ci tur booy Djilor mu bindu ma ci tur booy Djilor ma bari ci xëy na ñi ma koy woowee foofu lañ ko déggee rek. moo waral tur booy Djilor. loolu nga dem dugal si loolu moo waral àll bi ñi bu ñu nee guy gi boo xam ne li am si tur mënoo koo compter waaw loolu la comme li ñuy wax rek sant jàpp si combat lépp tamit li nga xam ne waroon nañ la ko laaj ñu ne ko waroon sant bi moom dama si jiital sama yaay dama koy sant bu baax a baax a baax a baax baax di ñaanal sama papa. yàlla yërëm ko sant tamit sam papa Galas Ndiaye daf may jàppale trop wax dëgg yàlla sonn si man bëggul dara lu moom metti quoi wax dëgg yàlla di sant gaa yi ma àndal dafa Bambey comme ni ma la ko waxee rek maa leen di sant bu baax barki Sëñ Tuubaa di sant waa café gi VIP comme ni ma ko waxee sànq Jokko bi dugg Fall waa Aynu Maadi tali bi xonk bàyyiwuma kenn man fu ma dem da nga yaakaar fa laa dëkk barki Xaadim Rasul di sant gars yi ma toogal nii ñoom booy jaxaaw bu sama gars yi ñoom Pape Sall Aba borom Ndombay sant Omar Noreyni ñoom Buur Géwél gars yëpp ma tur tur kenn quoi mais gars yi ma ceenel nii yaa ma a xam ñoom Marle di leen sant bu baax di sant laat laat bu armé Pa Mourou sama doom nday laat bu armé xaritu yaayam dama koy sant bu baax di sant sama grand Serigne Faye bu benn barak Assane bu armé maa leen di sant bu baax Talla Diagne Talla sama lépp la barki alxuraanu karim lu nekk lay daj si groupe yi ndax man quoi lu nekk lay dégg tamit mais gor la quoi champion la jàmbaar la ci man parce que alxuraan di ko bu baax di sant ñëpp di sant sama yaay Faat Fay kenn la si ñun quoi duma wax si man si ñun laa wax mu koy sant bu baax a baax a baax a baax di sant sama xarit yi ma àndal seen jabar ya ku ci mel ne ñoom Nogay comprendre nga te ñoom Thiat Fandour te ñoom Ulay gaa yëpp regroupement dañuy sonn te ñoom nee nag du ma bàyyi kenn. di sant sama grand Aba Mbara maa ngi koy sant bu baax Aba day sonn ci sama combat billaay Seri Seri Xawa di sant ñëpp Iri billaay maa ngi sant ñëpp waa Fatick maa leen di sant damaa am combat ñu jógee ñu jógee ba dëkk loolu dafa yombul ak alxuraanu karim waa Mbin Yat Mbin Bisaan Ñaawul leen sant ñoom ñëpp waa Fayil di sant Ndiogane Fayil nag Ndiogane Fayil maa ngi koy bu baax gis naa ni mu taxaw ci sama combat bi ay ñoom Koli. Ablaye ak ñoom Papi Fardas Mbaye commissaire maa ngi sant ñëpp Maadou bàyyiwuma kenn ñoom Amdi Diouf comprendre nga waa ngal ba daal maa ngi sant ñëpp Mbiniat bàyyiwuma kenn tamit parce que gis naa ni ñu may taxawoo quoi di sant sama grand armée armée bu benn baraak maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax waaw gis naa ni may taxawoo quoi day sonn ci man barki sëñ Touba di ko ñaanal combat bi mu jëm nii suñu borom may ko suñu ndam lu kawe njortam parce que jàmbaar la quoi. di wax gars yi génn jàppale ko combat am combat waa benn baraag la sëñ Touba dañ ko jàppale bu baax nuyu gars yi ma toogal ñoom ñëpp tamit am nañ combat marle di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam booy jaxaaw comprendre ka cargo ñoom Kaaw Cissé di nuyu ñëpp bu baax bu baax bu Malika di ko sant bu baax moom tamit jàmbaar la sama waay la Baay Faal la war na sëñ Touba di sant gars yi daal di sant ñëpp. sant nga ñëpp gërëm nga mhm. ñu am na benn message tamit bu ma bëgg a lancer quoi. waaw message boobu suñu maam laa koy lancer quoi Manga 2 Manga moom xam naa ne suñu maam la ci làmb parce que yaakaar naa dafa bokk si si si affaire CNG bi yaakaar naa waaw Manga moom mbër la quoi bëri na ba bàyyi bëre moom xam na ne làmb làmb la te làmb daa am lu mu laaj dama yaakaar na rek su ko déggee dina ci def ay jéego quoi moo tax ma koy wax mais dara parce que làmb. dafa bëri lu mu laaj quoi ci biir làmb te ñun ay mbër yu ndaw lañ dañuy son dañuy jël suñu xaalis dem fu nekk di ñaan lu ji dama yaakaar ne mbër warul mën a ñëw ci làmb ñu koy wutal fu mu war a teg ci ma man loolu noonu daf may jaaxal daf may metti trop nga ñëw ci làmb ñu ne la féetal gauche nga ñëw waa CNG ne droite ngay féete fa force boo ko tegul ñu dagg sa xaalis te ñun mbër yu ndaw yi am ñu lu ñuy dagg ci ñun ñun lan lañ am mbër yu mag yi ñëw sa sëriñ na la bootal penku bi nga ñëw boot penku bi wala nga ñëw ñu la toogal soow nga toog fa ndax lan même bu fekkee waa CNG dañ koy bañ sax yow boo fa toogee bu ñu daggee sa xaalis du si ci yow te ñooñu noonu ni ñu bëggee ndam ñun noon la ñu bëggee ndam ñoom ni ñuy daanoo mu leen di métti ñun ñii buñ daanoo noonu la ñuy méttee licence bu nekk si ñoom li ñuy fay licence ñun moom la ñuy fay licence li ñuy fay assurance ñun moom la ñu fay assurance kon li ñu nangul mbër yu ndaw yi li ñuy nangul mbër yu mag yi dañ ciy dimbali mbër yu ndaw yi dëgg la nag yemuñu quoi parce que mbër mu mag bu war a ñëw bëree la muy indi ci mbooloo day doy waar mais maanaam côté cumbukaay na ñu si dimbale ngir yàlla benn maa nga man loolu laa loolu laa koy yóbbante quoi. kon su ma déggee sa maanaam mbër mi day dem uti ay ñaanam ñëw ñu tegtal ko ne da ngay toogee gauche wala nga toogee droite wala nga boot penku bi wala nga boot ñëw ñu ne fii ngay toogee maanaam lool loolu ngeen moo leen neexul. loolu du man kese la metti sax li ma koy li ma lay wax nii dama koy wax nii rek maanaam mbër. la kenn warul wutal fu muy tagal fu muy teg fu muy tag cumbukaayam mbër kenn waru ko wax fii ngay teg si cumbukaay ku dul ki koy ñaanal nga dem ci làmbu préparer sa combat ba sonn def lu nekk dem ci ay nit ñuy ñaan noonu yàlla rek la ñuy ñaan mun nangu quoi mais am na lu leen yàlla may xëy na ba na la féeteel nii wala féeteel nii ku ne xam na ne làmb dafa am ay rawaan nga ñëw ci làmb ñu nga yaakaar ba dem ci ñoom ñu ñaan lu ñun la bul toogee ndeyjoor nga ñëw waa CNG ne la far foos ndeyjoor ngay toogee nooy def loolu métti ma man kese am na yeneen mbër yeneen mbër yoo xam ne ñu fi du ko kaas nañu ci dimbale ngir yàlla su fekkee mun nañ ci pexe laax de ñu def ko mais mbër fi ngay teg sa ci mu kaay loolu du yoon sama xalaat bu gàtt quoi parce que man maa gën a tuuti ci ay mbër yu wax mais dama jàpp loolu du yoon parce que mbër yu mag yi bu ñu ñëwee dañu xool fu ñu choisir ñu teg ko seen ci te loolu yaakaar naa dafa bokk si làmb quoi làmb cosaan la ak aada am na loo xam ne loo ci dindi ci làmb rek li ma lay wax nii làmb ji day daal di manqué làmb làmb la ko waa foofu laay waxee waaw. message bi nga lancé bi rafet na tamit loolu jaadu la nga koy lancé suñu papa Manga 2 message boobu jaadu na te CNG itam dañ la bàyyi xel si loolu message boobu nga lancé ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la wax bonne continuation de la lutte ndax làmb mu ngi noonu chaque jour da lay wan boppam ndax defet tudd defet deferu la tudd nit départ na fi teg la ay defet nga toog si ay victoire ba déglu waa des arènes kon làmb moo mel noonu defar waatal gën a xam fi ngay tegaat sa tànk SBT bu baax a baax la jox sa wàccuwaay bu wér a ah, Idi maa ngi sant sama grand Mbaye Gass Mbaye kenn la si man quoi day yëkkati xaalisam mu bari di ma may barki alxuraanu karim am si man yéen a trop wallaay maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm tamit di sant Abou Laata Abou Laata borom Espagne ah, borom kuy noote maa ngi sant bu baax. kooku yaakaar naa ne kenn la moom tamit ci man ci groupe lamb lañ xamante mais day sonn ci man quoi di jël xaalisam di ma envoyé xam nga di ma taxaw daal maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm ah di sant tamit waa group suñu làmb groupe la boo xamante ni dama fay jëlee ay information yu ma neex ba pare ñoo am ci mën yéen am ci ay nit ñoo xam ne fa lañ ma xamee di ma ñaanal di ma jàppale maa ngi leen di sant bu baax bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum waaw maa ngi ñëpp daal. waaw bàyyiwuma kenn waaw waa Casamance maa ngi leen di sant tamit waaw waa Casamance Idrissa maa Casamance di jàppale mu bu baax barki sëñ Touba mel fa laa dëkk Casamance waa Bignona waa Badiana waa Silenkil maa ngi leen di sant bu baax di sant waa Sindian waaw maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax mampalaa ko bu yàlla bu yem bàyyiwuma kenn Casamance da yi ma lay wax nii bilaa bu fa àndoon da nga yaakaar ne dëk fa laa taala di ma taxaw bu baax atelier Ataja maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax Ataja bu Sinjaan kenn la si man ko quoi di nuyu ko ñoom Siteu paa yi nekk foofu noonu yëpp maa ngi leen nuyu di nuyu jabaram Tunkaaru di leen nuyu di leen sant bu baax bàyyi ma kenn gaynde gi di nuyu tamit gaan sama mbokk yi nga xam ne yàlla dafa dogal yoon teg leen loxo ko waaw ñi nga xamante ni gaan ay jàmbaar lañ ay bañkat lañ waaw natt la quoi bu leen suñu borom teg di leen ñaanal yàlla yàlla ne sama borom taxaw ba suñu borom ko jàmbaar yi nga xam ne suñu borom dafa dogal yoon teg leen loxo ta dañ doon sonn si ñun quoi duñ tudd turu kenn nag mais ñu ngi sant ñëpp fépp ñu nekk rek yoon teg la loxo ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na sa borom taxaw ba nga génn ci natt boobu noonu maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn waaw di sant sama écrit bu baax a baax a baax a baax a baax sama papa Père Faye suñu grand mbaay ñoom Hercule 1 ñëpp bàyyiwuma kenn ak ñoom Aline Mbaye Nder gars yi ma fa nekkal ah ñoom Texop ñoom. nu ñu koy waxee garga di ko encouragé moom tamit keroog dafa daanu di leen sant ñëpp daal écrit benn baraak mbooloo maa ngi sant ñëpp sama sama doom nday Géant sama seex maa ngi koy bu baax joo bu déranger mu kenn ku lim da ngay jum di tamit sama grand sama nijaay sama xarit Boy Diop Boy Diop benn baraak Boy Diop kenn la barki alxuraanu karim Boy Diop dafa bëre ba bàyyi bëre dafa bare dafa bëre ba ba ba sori ci làmb mais bu bu bu nit jógee benn baraak da ngay yaakaar ne sax raxam mooy bëre ji barki alxuraanu karim lu mu mën si ay ñaan dañu koy ñaanal di ñu conseil dañuy teg si yoon kooku kenn la si ñun danga koy ñaanal yàlla mu am jàmm te li mu bëgg si waa benn baraak ñu am kooku waa am booy jóg di nuyu waa mafia foofu yëpp ñoom Modou Kalabaan ñoom Abou Sita maa leen nuyu bu baax sama gars yi ñoom Mbaye Diouf waa Oussebi bàyyiwuma kenn ñoom Mbaye Diouf maa leen nuyu bu baax idi xam naa niveau bi bari na nag mais mooy loolu xam nga rek waaw gars yi ñoo ciy sonn quoi moo tax il faut nga tudd leen ñun amuñu autorité yi ñu mën a teg loxo moo tax jàmbaar yi teg loxo rek ñoom la ñu mën a sant gërëm leen quoi Cheikh an sama doom day maa koy nuyu bu baax waaw di ko xamal ne fan yii dinaa fa ñëw nag gis naa ni mu taxawee ci combat bi son na si trop moom tamit di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na jàmm yàgg senegal waaw loolu laay ñaan daal jàmm yàgg Sénégal di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Tafa Diané ah Tafa maa koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax Tafa Seydou Mbouba bilaay dafa sonn ci man ñoom Moussa Thiam ñoom Ameth Thibault maa leen sant bu baax gis naa nañ ma taxaw waa carrière bi ah bàyyi ma kenn war na sëñ Touba ñoom grand Ibra Leuz ñëpp maa leen sant bu baax a baax képp ku nekk ci oto yi rek camion yi maa ngi lay sant ah gis naa taxawaay bi noonu la demee nag.